Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. C'est Animation Médio SN. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Merci pour les abonnements. léegi mënoon ngaa bañ a toog fii rek nga bëgg affaire place trop man moom xam naa moom place moom gën a koñ moom neexul dara nga dem place rek. place bi moom dégg naa wóorul dégg naa léegi nga xam xamoo ma yow lii ànd rek xamoo ma man karaté kaa de ceinture noire laa bàyyee. ah Ibou waxati nag fu nga nee karaté kaa te yëguma ko man yow xam sax waa beew dina maa xam de man dañ maa turee xeex ay benn nit ay ñaar nit sax ay cinq personnes six personnes laay xeexal waaw baax ah tey moom place dafa calme ni laa bëgg man muy benn bruit tey mais gis nga de tey moom booy ñëwuñu fi quoi tey place daa dal quoi. hey vous deux là qu'est-ce que vous avez fait ici. Eh yaakaar naa bandi la de. <laughs> dama yaakaar dégg leen lan ngeen di def fii. waa be dafa effort boobu sànq yaa ngi doon wax naan ma karaté kaan jugal kay. mais man damaa waxoon ay ñaar ak ñett laa xeexal même pas kenn kii. ki su ma ko xoolee wax yow kii xaaral nag ba ma jug bee. <laughs> su ma nekkee fii di wax di ngeen di xalaat loolu day jël temps et fils ka yow yow laa soxla ka ama laaj à part ça yow yow tudd ak foo dëkk. man Fatou laa tudd. am nga sens tudd. <laughs> noo man Modou laa tudd. booy daloo booy. booy ñu fàtt tudd de. booy fi ñu teg moom est-ce que wóor xel dalul de ak bindee nii. mais booy la moo lay wax da nga xaw a ragal quoi booy fii dara nekk nan toog booy yow danga bëri wax loolu yàq quoi comme fii dégg naa rawaat li fi ñëw fan yi bari na de booy yow yaa ngi mën ne doo góor yàlla bàyyi fekkee doo góor yàlla nga dem bàyyi ñu maa toog ay tapet de si booy loolu jar na sax soo ma waxul woon demal sax damay dem. xaaral dem sax comme instant bi kenn nekk. Visselaar moom baa ko fii rek mu nekk fi de garaaw garaaw. commissaire jàngal ni waay taal bi daa xaw a ay taal. ah saa bi dem na bàyyi ma fi bàyyi te maa toog rek ah dem na bàyyi man dëgër bi laa mën quoi. nan toog rek bàyyi. commissaire yaa ngi gis booy bi la sol yow bu lay nañ ko def. wax nga dëgg sax man kay xaama dem si nga wàcc yoo xam ne. mooy loo fii ba heure bi gis nga heure jot. minuit minuit trente nga toog fii rek waaye lii sama ndey tey rek la ma yàlla doon xaar ma jël sànq ma toog ma ñeen may garaaw garaaw waaye naa xam tey lépp dëgg booy pourtant yow laay waxal de dem na yow nga def fii ba heure bi ay police dama sonn su ko dem ba léegi ma faa génne <laughs> non <laughs> jàppale ma rek moo tax ma toog toog fii nii am gën a xam comme moom moo tafanaan xamul lu ma def. booy affaire bi waxee yomb na de waa jugal dem seen kër. mais policier bul insister man xam nga rek sam papa moom gis ma ak gis bu tutam la yamale. booy. gis naa li ngay wax dëgg la si yow tey mën nga fee nekk waaye bu subaa moo def gisaat heure yi dafa guddi quoi moo tax. mais yow ndax jàppoo booy bi yow. grand kii mënu woon ma rëcc li ma wax dafa daw yaram damaa wax teeram moo ko génnee gàllen moo tax. mooy mooy booy bi rek. man di wax daanaka sama gis naa ma dangay dem jël baay wala Ibou Baye tey xam naa dañ maa xamul kañ du dugg jël du sax ku yëg xam mais quelle création mais xale mool na de booy bi foo jaar saba soxna si si xanaa ku lay nuyu nga mën kaa fay dépp sànq rek maa lay nuyu mais yow faale woon mais soxna si dépp sànq rek maa ngi wax ak yow xanaa kuy wax ak yow nga mën kaa faale boobu ngay mën a istari bu taxaw nii rek mais soxna si bu fekkee ne mënoo maa tontu kay léegi baa mu wax li ma la bëgg a wax ma laa bëgg wax ne man dama bëgg je t'aime au fond de mon comme la poisson aime de la mer jara nga ma sax gaynde toog ma ruux ko daal daw ñëw woo woo woo sama day joomi na man am ma laa doon doxaan eh, Et... Eh, aujourd'hui, eh, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Ahmed Zo si teer bi neex na de. ba yow kaw kaw rek nga nekk si teer bi sànq ba tey ngay wax rek. man xamul tax Sénégal mën a garaaw garaaw rek leer na moom moo si la. booy yow fàtte naa ne sax dëkk ba nga jógee xamoo yi sireetu mbaam rek nga xam booy fii koo fi gis jaar na si village sénégalais moom mel noonu li wax la mu war a bàyyi nga xëy ñaan village waa village waa te fii ñëpp jaar si village waa dama war a bàyyi village waa ñu dund waaw booy jeex na sax wax daa ngi bëgg a bari ñu génn xaalis bi après nga paas ñu dem booy dégg ma li nga wax de <laughs> man ma fay nga wax booy xanaa dof yow waaw réew rek yow. booy yow léegi yow xanaa kon yow dangaa bëgg man ma fay yow nga xam si kër nga ma jëlee ñu ma maam ñu dëgg si teer ñu dëgg si teer kon dangaa bëggoon dañ kumpa rek. ma ne leen dugg si teer bi waaw léegi lu siy pexe. booy instant yi man moom am ma pexe ah di jënti ko rek. waa booy am naa lu ma xalaat de ba léegi gaari wàcc ñu boroxloo wàcc. duñ ci dara si booy xalaat ba baaxul de nga xamoon ne fii daa am ay caméra de de oh. c'est la police vous êtes en état de arrestation yéen nii rek ngeen def yéen teer bi ñëwagul sax di def seen affaire teg di lii nii da leen toogaat jóg leen fas laa fanaan nii lu wax sama a fanaan nii rek moo tax réeroo tey man de bu nekk man damay réer ba suur avant combat bi di commencé nga war a xam ne daan Balla Gaye xam nga ne Bombardier du moromam moo ko sut ëpp ko am na sens da ngaa waroon dóor ba ba mu daan ba tey ngeen Balla Gaye la moo di découragé wallaahi kenn wax signature bi ngeen nekk fi naan bàyyi boo wala combat am ay deux dina mu wax ko booy ñëw nit ruusloo ma nii gën mooy loolu de ba Balla Gaye gaa mus kaa bëree xaru combat bi waa jeex maanaam day bëree waaye loolu da waroon teel a def. boo yow yàgg na xam ne boo ma moom moo mën boo ma nga xam ne xajul sax suñu bunt kër avant combat bi moom laa ko waxoon. saay bu waxaa si wax yooyu waay bu ma jox na nga victoire jeex na saay yéen a si wax yooyu baay dama sonn si ay Bombardier ak Balla Gaye j'en ai marre. booy nangul dogal rek bu nekkoon man sax damay nangu dogal rek instant li ngay dund moom xam naa na xam ne moom man Balla Gaye bi xanaa gisoo ari ñu ko doon dóor da mu bëggatee njëkk na kaa tax at ko mu jàppaat ko dóor ko ba. waaw sooy wax daa ngi bëgg a bari de daan na ma koy jeexal saa yu bul waxaat man dama lay xam nga ma de. mu leer booy yow nga tàppet mag pare nekk fii di wax yow reewoo sax li boo ma jee def Balla Gaye moom laa lay def booy yéen booy ngeen def ne amul benn importance fële laa taxaw gis leen ngeen dóorante di xuloo ci affaire combat yi yéen tamit am importance yéen ñaar yéen ànd toog fii nii di waxtaan ne affaire combat yi débat bi métti ngeen nekk bëgg fee def ni baaxul moom jëmu kër ndam li moom génn xam naa moom fépp la am lu comprendre mu ñuy débat si làmb bi te débat moom yàgg-yàgg mu lay dañ fi gis ñu xam dañu xuloo di xeex di rayante affaire làmb yi amul benn importance pare xaalis ñoom ñoo koy récupéré ñoo koy lekk yéen am dara doo fi débat du fi rayante yooyu importance ma ngeen def xool leneen ma ngeen dem xool leneen moo gën su ma soñoon na ngeen loxo nga xam ne àdduna mu sol affaire yi nii ñu fi xuloo te ñoo ñaar daan ànd boy baal ma àq dama kaa dama ñëwoon pour mbalag nii rek mais ñëwoon pour ñu xuloo fii nekk fi xeex baal ma àq waaw ah, baal naa xam nga ne bàyyi suñu bërëb bu ko daanee mooy loolu nga ay mer quoi ñoom borom boo jàngaatee alxuraan boo xoolee wax na la ko nee na la ma jébbal seen lépp. waaw ak ñi nga xam ne dañu ma jébbal loxo kese téye leneen li mënu ma leen yemale ñeneen ñi. loolu fu ko wax. mënum loolu am boo jànga bu fekkee jàng nga kon yow des nga jàng. oosu oh, bilaay mu ne seytaane rajim ba mu jëm kaw. déedéet mu jëm kaw. oosu oh, bilaay mu ne